déglooti leen ma way sëriñ Hamza ca kaw bamba ko fal may ko ngërëm teg ko ca kaw si Hamza tooy ki bamba koy takkal médaay bindum sëriñ bi moo ci sax du daw du daay si Hamza tooy ki bamba koy takkal médaay bindum sëriñ bi moo ci sax du daw du daay asadu gayndeg bamba géy ki jiite tey mbooloo mi fii safoo mbindum sëriñ bi tey daj Bamba geey ki jiite tey bi tey ñi Bamba dénk yoon wi tey yaa ngi ci biir ku murit noroy ci moom ak laa biir ñi Bamba dénk yoon wi tey yaa ngi ci biir ku dib murit noroy ci moom ak laa biir Seex Balla Faali yaa ko xëy wuutu bu wér ci jaali baak tarbiya jërëjëf borom Tuuba jërëjëf borom jaaraama Cheikh Ibra Fall borom Tuuba kenn nga billaahi yow kenn nga borom Tuuba kenn nga billaahi yow kenn nga kennal ku baax kii Mbàkke war na ba ko kii ku bëgg te kii ba ëllëg kennal ko war na dox dem ba Makka wax ak malaaka tabax fa ay jàkka yu rëy rëy di Bamba fanaani diiwaan di saytu Qur'aan tey wane ay kéemaan yu rëy rëy taxul di Bamba ki yàlla moo nu ki yàlla moo nu ko may yow yàlla bu wér moo yàlla foo ko jëlee ku àndula dara la dul moom yàlla bëggul moom mi bind ku dëddu bamba Cheikh bamba kottu ku bañ ni mootu mbaa xol bu futu mbaa ñu ni deena day xëy di jàngal nit ba mu mokkal te du bindal te yàlla bamba ba nu amub yar te déggu nub mu yar noo sant Bamba ni day rey jullit ni day roy ñu ba rey rey ngir tële mëneefu la rey mëneefu la roy te roy ak rey xalaasi Bamba ku laf fi daa roy bay na la roy ku daa fexe roy banal la Bamba man jéemu ma roy te jéemu ma roy damay fexe bay ci tooli Bamba démb amoo maas tey jii amoo maas doo am ëllëg maas kenn nga Bamba la yàlla jëfil ndurug yonen ba doxin deesu xam deesu la yàlla nga juy nuru nit defar nga képp defar nga lépp defar nga fépp bokkoo ci Bamba salar gi dem na sab coona wéy na sa gi ñëw na doo ñeete Bamba faw tàgg jot na te kañ la jot na ma kañ la Bamba xare nga fépp dàq nga fépp wasal nga fépp nooyal nga Bamba Kongo xam naa Gabon ji xam naa Mayomba xam naa ndimbër nga Bamba man aw ma xam-xam ñàkkuma xam-xam sëriñ bi laa xam xamuma fen yi sëriñ bi laa xam sëriñ bi laa am yàpp wi laa am amuma yàq yi yaa bind yaa moom yaa sàkk yaa boole kay moom moom ak la mi yow dafa yoru yiw yow moom yoru yiw danga di aw yiw sang dadaa baax te yamti ak baax yow nak danga baax ba far di ak baax sang bu nekk mel naa nu nekk te sang lu roowul ak yow sëriñ bi raw nga sëriñ bi wey nga sëriñ bi dem nga jàll nga képp ne ci yàlla ne fa yàlla jeex nag ci yàlla ëpp nga bopp yow fa nga nekk yàlla fa nekk kenn du fa nekk ku dul yow ak moom mate bu baane dëree fu faane bu kenn fas ni man mi damaajum yow rekk yaa weet te metti ak weet amuloo xeet fennati déedéet yow amuloo xeet yàlla di saw xeet doo mën teeweet doo ñàkk teeweet yaw yaa di kenn ku nga doon dum te yow du kenn laqal di doon dum mbar mu ne ak lan ko fale mii mbar alal nga ko fale mii mbar lawet nga ko fale ko wasal mii mbar nga daane ko yaru mii mbar nga daane ko beru koo gis mu yàpp la day xaru yow weesu ngay bëri sëriñ mii mbër nga daane ko tabe te lii taxul yow nga yabee ku daanu nanga ko fabe te jox ko gaa yu koy bësal foo déggatee lamb ju gor taxoo xamal ni senn gor bëggul torox te mbaate lor yow weesu ngay bëreg sëriñ solol sa yére daagu wey waykati kañ la di la way ku daane mbër yee mata way ku daanewul mat la wayal seexi gànnaar ak yuy kajoor ñépp a ngi naa la yaa góor kenn sikkatul ni yaa góor ba nga defee lu kenn deful yàllaa ngi naa la jërëjëf yeneen bi naa la jërëjëf sëriñ si naa la jërëjëf ndax ndam yi yépp yaa jël ku yàlla far di sab géwal yeneen bi far di sab géwal sëriñ si far di sab géwal ku la wayul du la soxal ku la wayit gis ku la way gis ku la way ko yabu noppi mbaamu way ndax am nga tànnee fi géwël yaa bind jëy ak la jër cëy lépp yaa gën a rëy kanaa ca yëg la mun naa cëy lépp menn mbër nga mu rëy yaa ëmb àdduna ji déglooti ma way sëriñ Hamza ca kaw Bamba ko fal may ko ngërëm te ko ca kaw si Hamza tooy ki Bamba xëy takkal médaay sëriñ bi moo ci sax du daw du daay si Hamza tooy ki Bamba xëy takkal médaay bindum sëriñ bi moo ci sax du daw du daay asadu gayndeg Bamba géey ki jiita tey mbooloo mi fii safoo mbindum sëriñ bi tey asadu gayndeg Bamba géey ki jiita tey mbooloo mi fii safoo mbindum sëriñ bi tey ñi bamba dénk yoon wi tey yaa ngi ci biir ku dib murit noroy ci moom ak laa biir ñi bamba dénk yoon wi tey yaa ngi ci biir ku dib murit noroy ci moom ak laa biir Seex Balla Faali yaa ko xëy wuutu bu wér ci jaali baak